gis ni aussi tey euh, ci actualité ba par ba tey ki nga xam ne ne moom mooy Bambaly Seck dem na rejoindre li nga xam ne moom mooy label Subatel Musique ñu bëri jàppe ne dafa am concurrence bu nar a commencé parce que gars yi dañu jàppe ne tey Faramaren Musique concurrent principal mooy Subatel Musique tey bu nekkee rakkam dafa dem fekk yi ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee concurrent concurrent yow ban gis-gis nga ci am xam nga man nag des fois dama doon faral di bëgg des fois di euh, def cool tuuti ci ay waaw euh, euh, ay ak yooyu parce que famille famille Seck benn famille deret la wax naa ko keroog kenn mënul dem bàyyi sa moroom waali xale la mais kilifa la ndax kilifa la parce que aussi kilifa la ci ñi nga xamante ni vraiment mooy ay rakkam mm-hmm. ah famille boobu kenn mënu leen séparer et du séparer wu ndax deret la ñoom ñoo bokk seen papa seen papa yëpp ñu bokk ndey ak baay te loolu vraiment nag deret boobu kenn mënu ko euh, séparer yaa ngi dégg et séparation sax amul. Euh, wax naa la ko keroog sa wax naa ko keroog sama émission parce que bëgguma des fois di di wax tout temps ci euh, parce que nekkuma trop ci ci ci ci ci waa ci ci sujet yooyu quoi ok. mais quand même actualité la foog ma répondre ci Bambaali suma rakk la Mandiaye Seck suma rakk la et ñu mën a woy lañu pour dire vrai e am nañu talent am nañu lu leen yàlla may ndax ay woykat lañu ay doomu woykat dre woy nekk seen dret je pense que euh, mun nañu a produire fu nekk mm. parce que boo fàttali ko Mandiaye Seck def na ak duo ak rakkam Wally mm. euh, Mandiaye Seck Euh, Mandiaye Seck def na duo ak magam Waly du moins euh, Bambaali euh, def na morsoom je pense Waly defal na ko morceau je pense bien mm. ah kilibal na ko def na ko ci kontam booy xoolaan sax kilibu morceau Bambaali da ko gis ci compte Waly mm. donc c'est la famille mm-hmm. lépp dafa war a rafet et je pense que sax dafa rafet ñu xëy nañ nit ñi ñooy wax ak yooyu mais pour man je pense bien sax boo laajoon Wally dafa naan la mais mais ils sont libres loolu gën je pense bien que noonu la réagir ah nekk ci biir musique bi yéen yéen gën a comprendre nga xam ne newuñu ci biti xam nga showbiz dafa am peut-être ni ngeen koy comprendre ni ngeen koy allégé fans yi duñ ko comprendre noonu ayoo donc ku ci mel ni yow tey boo toogee peut boo waxee ni nit ñi aussi waaw noonu xam nga pour man li may wax rek mooy sama wax le temps rek Demba Guissé kenn xamu ko ci wax buy buy buy buy buy xaajale ou bien buy ñaaw mais lu may wax rek mooy c'est la famille. ñu bokk benn famille et vraiment problème amul fa quoi xaa kay te aussi kër gi euh, booy dem aussi Matar suma xarit la man ku xam Demba Guissé maa man lay wax sànq naan la 2012 laa njëkk a dugg Europe maag Matar suba teel ñoo àndoon waaw Lamine Daba moom ma yóbbu woon. promoteur bi Lamine daa bu xaritu Matar la Mataram ñoo bokk man ak moom fi ñu doon fanaan benn kër ñoo bokkoon ànd chaque guddi ñu dem soirée chaque guddi ñu wër euh, euh, ki Italie ñu fa jógee dem France yaa ngi dégg maag Matar Diop la woon c'était en mu nekk nit ku baax ah, ku baax Matar mbaaxam bi du affaire bu bees du ay subateel ak yooyu ndax ma mag mu xaj a xamante nañ ca fajar avant subateel yi di am yaa ngi dégg e mu am yéenal trop e xam naa ko Euh, tey ku mu àndal ci artiste day bëgg tout le temps nga jëm ci kanam ànd ci ak ñoom je suma sama rakk et tout ça loolu loolu loolu c'est c'est c'est loolu loolu musique bi rek mooy gagné ah kii dem na fii fi mu dem dañu fas yéene jàppale ko kii dem na fi mu fas dem dañu fas yéene jàppale loolu la rek ah xam nga pour rek en suma modo pour dajale waxaat lu lépp rek mooy que euh, à Famille Seck ay artistes lañu ñu am talent ñu yàlla may boobu boobu boobu baat ñu am ko ñoom ñëpp ah ba bambaali mi gën a tuuti jàpp ma jaay sekk Waly Seck Kéba Seck Ousmane ak ñooñu macha allah yàlla moo leen dogalee ñu nekk ay woykat yu am talent ñoom xale yëpp ku ci woy sa papa woyaat nga ne papa jaa dàq woy donc tey c'est la famille dégg nga dara ñaawul nit ñi ñooy wax nii rek mais vraiment ma gisuma sax loolu li tax sax ma ci bëgg ci di prononcé wu parce que du loolu mooy tax du loolu laay bëgg di wax tout le temps samay émission mais damay juste rek wax ni que aar bi lépp na rafet quoi te bu rafetee mën nañ ko partager quoi ku nekk am li nga war a am. Mm-hmm. kàddu yi rafet na Demba Guissé donc dañuy ñëw juste euh, fan yi ñu génn wala weer yi ñu génn euh, yaa ngi woon ci benn euh, festival donc est-ce que mënoon nga mën nga ñu gën a expliquer booking bi nan la demee festi festival bi da nga demoon pour xam nañu da nga demoon pour représenter li nga xam ne ne moom mooy culture africaine culture sénégalaise mais culture haalpulaar comment ça s'est passé. waaw festival boobu maa ngi ci remercier Air Monotune di nuyu aussi. Euh, Penda Thioune Xaali Thioune Ali Thioune Mbay Thioune ak yooyu ñi nga xamante ñu ngi sant Thioune nekk aussi ci projet bi euh, man euh, saa su ma génnee fii rek dem Europe li les quatre-vingt-quinze pour cent culture bi moom a yóbbu waaw boo xoolee dem ba gisee xam ne kat way bi mu bi koy yóbbu way yi nga xamante ni xëy na fii Sénégal sax duñ koy faral di. duñ ko faral di def tendance quoi. Mm-hmm. ok eh, boobu moom laay yóbbu fële te xëy na sama baat may na ma ko sama euh, accoutrement may na ma ko bi may wane ci kaw scène bi mu mm-hmm. nekkoon festival nag bu mag mu mm-hmm. amoon biir auditorio muy salle de spectacle bu mag bi nekk Las Palmas donc euh, ma nekkoon fa nag vraiment euh, may profité di nuyu Fatoumata Konté il euh, aussi avait aussi Massané. Hmm. donc euh, Daouda Diagne bon ay ay ñi nga xamante ne vraiment ñoom it ñu ngi évoluer lu bari bari bari ci extérieur bi euh, donc festival bu bu bu bu am respect ah bu am respect soo ko déggee mooy que boo taxawee ci salle bi xam ni salle bi nga nekk nii hmm. vraiment du saalu como donc salle bu bu bu bu moom mu ëpp suñu salle yi hmm. donc public bi aussi ay ay ay blanc la ñu nit ñu weex donc tuuti nit. Euh, ok ñoo fa ëpp déjà et je pense que loolu moo nekk combat wu euh, artiste en tant que sénégalais nga dem wane sa sa sa sa drapeau xam nga man boo gisee su ma taxee seen yooyu sama xol day sedd damay jàkkaarloo gars yi tubaab yi xam nga nga xam ni damay def tengaade des fois ma bàyyi tengaade bi xam nga xam nga xam ne artiste moo ñëw bu jógee ci dëkkam ñëw wane culture dëkkam et c'est important loolu mooy combat bi mais pas quand yaa ma ne woon fii ma ni la fee yegg yaa woy kii yegg yaa vraiment man nekkuma foofu man fi ma nekk mooy sincèrement chaque jour rek bu ñu may gis ci yenn image yi ñu gis ma fële ma nekk di représenter Sénégal ci ci ci sama culture quoi et je pense que loolu moo mooy importance bi quoi. Mhm. donc euh, ba nga jógee aussi ci festival boobu ñibbisi woo directement Sénégal danga fa jaaree rek ca Zénith bu Baaba Maal su ma juumulee donc mu nekkoon aussi événement bu. waaw Zénith Baaba Maal bi Baaba wax naa ko sànq euh, Baaba Maal Sénégal euh, dañ ko bëgg waaye Europe dañ ko bëgg. Mm-hmm. rawatina boo duggee biir Paris bu Baaba Maal di tëgg foofu embouteillage day am. Baaba Maal buñ ko bu affiche am génnee rek ñu ne Baaba Maal moo war a tëgg tey. Mhm. Euh, à l'extérieur foofu tubaab bi lañ koy pare nit ñun ñi pare ko te xam nga alpulaar dafay sot. Mhm. ah alpulaar jingat quoi. ok donc donc donc tey dañu dañu dañu dañuy xam ni baaba day ñëw. Mhm. ok euh, euh, euh, doomu Fuuta bi dafay ñëw donc war na rek vraiment gars yi dajaloo déplacé wu ñëw boo demee tey ñu ne la zénith bi tey la noo boo xoolee vraiment. dafa fees del te boobu boobu moo nekkoon final Ligue des champions su ma juumulee. final bi la woon xam nga am ñu ki am ñu naan waa final bi ak zénith bi man leen noppi leen rek daf leen dànk rek. waaw mais xam nga xam nga xam nga baaba moom baaba buy tëgg faalewul final ak quart de final ak huitième de final. moom dafa naan euh, fii la war a tëgg te moom bu ko songee rek da koy daan mu tax keroog Zénith bi bu mu amee waaw vraiment mu nekk nag lu neex lool mm-hmm. sax Zénith bi passé moom. Mm. est-ce que sax Zénith bi dàqul est-ce que yi doon am. waaw te malgré ça bii moo gënoon bëri enjeu. ah feebar bi déjà commencé woon di yokku. ñii naan ah, dañuy tëjaat saali wala mais baaba xool loolu. Mm-hmm. baaba baaba baaba baaba gannaaw nee nañu ah corona bi presque dem na. Mm-hmm. presque dem na ah. donc euh, feebar bi euh, duñ dox sax bu di ko teg bët donc bu ñu nee espace am na pour ñu tëgg Baaba Maal bi ñu ko jàppalee date ñu dafa tëgg fii non foofu foofu foofu. boo fee boo feebaru bi nga xam ne Wally sekk moom la ko defaral des années gis nañ ni Baaba Maal kontaan na si ba après sax daf ko ne euh, gis naa li nga defaral sa sa papa mais dinaa fayu après bi affaire bi. jeexee waaw Wally Wally Wally dafa doy waar. dafa doy waar. Wally bi mu ñëwee te Wally xam nga. Wally Wally Wally Wally Wally Wally guerrier la quoi mu ñëwee si Zénith bi te li ma si gën a neex mooy euh, euh, bi muy def bi muy bëf ak Baaba Maal dafa nekk à l'aise te répété wul waaw bi Wally yéegee dafa nekk à l'aise ci yooyu bi répété wul nga xool papa ak doom ñu jokkalante. e bu fi papa coon nekkoon tey noonu bu doon mooy invité bi te aussi noonu lay defee. Mhm. te Baaba Maal pour wax la ne que euh, ki annoncé wul sax ne en public bi ne que dama war a invité Wally Seck déedéet da ko invité ci suuf ah bàyyi ba saal ba ñëpp ñëw affaire bi kii mu woo mu ñëw Wally ñoo def participation xam ni papam la fekk si. mais duo bu extraordinaire tukulóore aussi boo bëggee Baaba Maal rek ñu bëgg la te Wally dafa bëgg Baaba Maal bu ñëw affaire bi rafet baab waaw Wally ñëw mhm. toj Zénith Baaba Maal ñëw toj Zénith. yóbbu macha allah voilà léegi bu fa jógee nag dañuy ñëw ci Yolele donc Yolele aussi nekk woy bu neex titre bi xaw ma déjà lu tax nga jëlaat tur Yolele mais woy bi dafa neex ñu bëri à chaque fois boo génnee son dañaan noo da ko tàndu wala bii moo gën a neex à chaque fois boo génnee dañaan man nag maa ngi ci yaama yaama bi. mais yooyu. <laughs> yolele xam nga xam nga des fois dañ koy wax loo génne ñun da koo tàndu bu yàggoo tànd yu bari euh, parce que li tax sama xaw a fipp tuuti mm-hmm. euh, j'ai l'habitude di woy ay morceaux yu soft nit ñi demoon ba canaliser ma côté boobu noonu kese mm-hmm. je pense que musique dafa large bi ma jëlee euh, Ayo e Bébé mm-hmm. depuis ma ma des ma album 2018 quinzième étage am na ay morceaux mbalax et tout ça mais j'ai remarqué ne am na morceaux yu am doole nag mais sénégal yi dafa am fu fu tendance bi nekk. man may génne musique bi bay génne album bi xooluma tendance dama génne album parce que album laa war a génne 15 titres yu neex. mais ma pare ma dawal album bi ñëw ma génn dugg ci Espagne euh, Mantes-la-Jolie Lyon Bruxelles euh, genre euh, ak yooyu. ok ba fa jógee ak Suède ba fa jógee ma ñëw ma ni attends. c'est vrai album bi dox na et sa ak yooyu ma dawal tuuti rek deux trois ans ma ne xaaral ma ñëw génnee morceau bi ma génnee morceau aaye bi ma natt ko par rapport ak public bi ñu aimé ko aimé ko nag moo tax bi ma bi ma nandee circuit bi par rapport ak loolu laa nag léegi toog amatul tax bi aaya e bébé ñëwee encore day ñëwaat ak jaarat fii e aaya bébé ñëwee euh, bi yow la ñëwee dafa jaar fi aaya e bébé jaaroon parce que euh, foofu la musique toll léegi nañu bind d'accord baax na mais aussi nañu sóoraale ñi nga xam ne vraiment dañu nekk tendance au diapason pour ñu mën ñu déglu aussi. parce que woy mhm. bi sénégalais yi déjà apprécié nañ ko. Mhm. boo xoolee TikTok bi instant bi yu ngi ci tendance yi. donc mhm. euh, inspiration bi. Youssou Ndour moo woyoon yoo lele. Eh, doom war naa jël woyu baayam. mu jël ko sama papa la. Euh, parole yi parole yi parole yi gis na yónni la woyoon Awa Guèye woyoo ma mm-hmm. jël Awa Guèye bi bañ ko wax parce que texte bi ma soxla mooy ma ñëw fekk si jeunesse bi moo leen li yoo loolu lee waaye samay parole laay indi teg ko ma teg ko sénégalais yi aimé ko juste loolu comme bind ko te woy laa damay bind damay inspiré damay xalaat mm-hmm. bind woy bu nekk ma teg ko fa teg ko fa teg ko fa teg ko fa moo ko fa tegee affaire yi neex sénégalais apprécier ko ma ñëwati encore ci fin ba si si digg sama ma dagg ko dugal ndongolo bu ma ba ma dem ok donc yàlla def nag moom it ma def ko affaire ba neex. waaw neex allah donc gis nañ clip bi aussi réalisation bi c'est très bien fait euh, ñu gis tamit Alaaji Mbaye donc Ala Alaaji mbay moom. instant bi sénégalais xam nga lutteur lañ ko jàppee. Alaaji Mbaye wala ki Alaaji Mbaye li tax moo Alaaji mbay man maa ko bëgg. day am des fois nit koo xamante ni da koy sopp. da koy da ko koy apprécier quoi. Mm-hmm. bàyyi faal maam Euh, nit ku oyof quoi nit bu bu bu ubbeeku quoi devant doomu aadama yi etu tout alaaj Mbay nekk nag ñu bokk Pikine ndax man Pikine laa juddoo nekk ku baax nag waaw baax torop torop torop torop Alaaji Mbay baa faale nag vraiment aussi bu sénégalais yi bëgg ah vraiment keroog keroog la ma ko pote di wax naan ma Alaaji Mbay man dama ko bëgg sama bopp loolu moo tax sax a euh, clip bi loolu gën na ma ci neex donc yàlla dogal tey ma ñëw ne euh, clip bi def naa ko te Alaaji Mbay li yàlla def coïncidence Alaaji Mbay dafa bëggoon yoo léeg da ko bëggoon dégg merci ak boucher ok après ci laa jël Mbay rek dugal ko ci morceau bi mu ne comme c'est comme c'est que man dama sopp Alaaji Mbay mm-hmm. Alaaji Mbay nekk sama xarit en même temps bëgg yoolale ma génne way mu tudd yoolale non moom moo mën def clip bi quoi moo woo nag mu ñëw vraiment jàpp ci clip ba mu rafet Alaaji Mbay ñëw oyof ñëw gaare taxaw laajul essence laajul dara pare def affaire ba mu pare sol sañ si lu rafet déplacé pare dem te muy ñëw te muy dem sax mu ngi taw mu ne non garaal bàyyi ma gérer taw bi ku baax laajul 1000 francs dégg nga mooy profité aussi nuyu Aïcha ñu koy wax ne ne bu nekk si série du man Aïcha suma jigéen suma xarit moom it vraiment mu ñëw def clip bi ba mu extraordinaire réew mi yëpp di ma laaj xale bu jongo mi kan la dëgg neexul daa jong ma nag allah <laughs> euh, ñu gis ni nag temps yi bii nag du sama question Sénégal sénégalais ñoo ma ko yóbbante nee nañ temps yi yaa ah, Amina Poté da ngeen da ngeen jëlante ba mu ëppal nee nañ temps yi Amina Poté dala jël favoriser la. Amina yow nga jël Amina Poté teg ko nag ci kaw ñëpp tamit gars yi loolu la ñu wax de nee nañ temps yi Amina Poté ñaar da ngeen jëlante. Euh, euh, xam nga déjà <laughs> déjà ñu ngi tooñ. Ah. waaw dèjà ñu ngi may tooñ ñu ne Amina. nee Amina Poté moom nga jël teg ko ci kaw animatrice yëpp instant bi te Amina Poté tamit yow la favoriser yow la jël teg la ci kaw woykat yëpp. xam nga ñu ñu tooñ. Ah, bon ah blague ah. Amina suma jigéen la et nit ku baax la ah. xam nga liñ naan koo xamul noo koy def nam la def a tax. mais ku la sagoo nga tiitaroo ko sama statut saa bu ma dugalee damay dugal Amina Poté wax ci moom lu baax ndax nag tele bu mu nekk télé bu mag la télé bu mag ci réew mi muy animatrice bu mag bu waxee ñëpp dégg ko man mu ñàkk solo mi mi ñàkk solo mi nga jël ma di ma teg ci télé bi di ma wax yi baax yi nga xamante ni jot naa ko liggéey muy yii ngeen ma xamee waaw ki la defal loolu moom ah moom lu mu la desel woykat bi ku ko wane la bëgg boo ma wanee ma wane la foo ma wanee wax ci man ma wax ci yow lu lu lu lu lu baax te kenn du ko dindi loolay àddina dama ne euh, ku ma defal lu baax ma wax ko tànk bàyyoo duma bàyyi ay dégg eh, nit ku baax la ku oyof ku mën a jàppale nit ku mën a soutenir nit ku mën a jële nit fii yóbbu ko fee dëgg tey sama morceau bi wax dëgg yàlla ñëpp a koy teg waaye naa da cee raw ñu waxante dëgg te lépp a ngi koy teg wax dëgg yàlla ndax nag ñëpp samay xet lañu waaye nag naa wax dëgg yàlla nag <tsk> ah moo laal de moo laal nii rek waa affaire yooyu affaire yooyu booy dama ko ciy remercier nag ndax nag ku baax la. ku yaay faale ku bëgg doomu aadama ku mën a jàppale nit ku bëggul nit bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu maanaam di bu ñu suufee ay dégg naam man na kenn suufee loo ma ndax man ci réew mi laa dëkk bokk fii nag bokk si ñu war a wax waaye dafa am loo xamante ni il faut nit bu waxee loo waxee lu baax danga koy waxal lu baax. maanaam dalaa rek nga fayu daal. kay te pareegu ma nit bu la defee lu baax danga koy defal danga koy waxal lu baax et. loolu la la wan danga koy wan lu mel ndax am na xëy na ku la gën a jege te waroon la ko defal te la ko ñu waxante dëgg dégg sama xarit la ku baax la Amina Poté yàlla na jàmmam yàgg tali bi Serigne Saliou. waa démb lu tax bëggoo intégré label wala da nga yaakaar ne peut-être depuis bi nga commencé nekk solo di demal sa bopp. Mhm. dala jig. waaw waaw xam nga xam nga xam nga waxoon naa la fii label contacté na ma. Mhm. ñu waxtaan ma déglu ko mu wax. Mhm. li ma proposé arrangé wu ma. dama ne. Eh, waxoon naa ko waxaat ko encore bañu ma label yi eh, néew ma duma ma fa mës a dugg. je bi bien mes dama ne je suis pour nekk ci benn label effectivement maa ngi samay liggéey maa ngi samay contrat maa ngi samay voyage maa ngi samay affaire maa ngi sant wax naa la ku jël artiste woo borom label ne ko xale bi de am na talent te vraiment bëgg naa nga jàppale ko dugal ko ci label bi kii woo borom label bi direct jàpp ci bokk suñu jàpp ci ba xale bi dugg ci label bi ba ñu apprécier ko kooku duggam ci label bi du problème parce que maa woo borom label ba am lu ma ko wax ci benn xale buy woy te xale baa ngi fa ba tey di tëgg ngeen koy gis donc kooku tey bañul dem ci label mais dafa fekk ne euh, maa ngi vivre sama musique mu may dimbali parce que euh, li nit di soxla ci aar maa ngi koy am di ci sant yàlla di ko xeeb nag di ñaan yàlla mu dolli dégg waaye nag euh, bu doon loolu kese kese kese moo des ma dem def ko waaye loolu kese desul am na leen lu ma war li nekk sama liggéey ci kanam ma war cee ànd ak ñu mu ci war a liggéeyal amul problème ne ci label yi ay jàmbaar lañu yàlla na yàlla jàppale ba label bi gën a jëm jëm ci kan label bu nekk Sénégal parce que man noonu laa mel damay bëgg su ma amee ñëpp am loolu kese mhm. euh, ñu gis ni jour fête de la yëngal ngeen ba mu yëng yaax yaama yaama ànd ak yëngal yéen aussi nga dem yëngal ñu gis ni aussi mu nekkoon en direct ci benn télé DJ Yves nekk en direct wax si yow lu baax yow nga wax ci moom lu baax est-ce que après émission guddi bi yaax DJ Yves déggante ngeen. <laughs> depuis boobu ba tey. Ah, sawar la des fois tu me poses des yoo xamante ne ay pièges lay nekk quoi DJ Yves c'est frère. c'est mon frère déggante wuñ nag après émission bi je pense boobu lañ ko jéggi déggante bon mais sama frère la mu ngi def liggéey bu rafet aussi je pense que euh, àdduna noon la da ngeen di euh, déggoo ci kaddu des fois des fois ngeen ba ñu déggoo mais y a rien c'est mon frère. Mm. duñ duñ ci xuus. Mm-hmm. léegi nag dama koy tëjee aussi ak. Euh, ay question d'actualité comme moom lañ ko tijjee woon ñu gis fan ñu génn Liberté cinq dafa am benn waay bu ñu jàpp dóor ko ba mu faatu ñu ne ndax da doon sàcc am na ñu bëri nag li ñuy jot a gis ba tey wóorul à 100 pour cent ndax waa ji sàcc la wala du sàcc mais jàpp nañ ko jiiñ ko sàcc dóor ko ba mu ñàkk bakkanam en tant que porteur de voix tey soo gisee genre action yooyu nan lay def. waaw dafa mel ni romb naa ko rek euh, ci internet bi mais gisuma woon xaw ma woon exact lan la. Mm-hmm. parce que des fois mën na action mën dara mën na am nga bañ a am trop trop li doo ci bëgg a sori parce que xamoo histoire bi lan la ko mais gis naa daal ñu ñu wane ne ñu ne diw dañ ko dañ ko dóor ba mu dee waaw ko dóor ba mu dee xaw mu tax ñu dóor ko ki ñu dóor it xaw mu tax ñu dóor ko waaye dóor ba mu dee day digaluñ ko kenn ci Sénégal. dóor ba mu dee wala ñu ko takk dóor ko ba mu dee diggaluñ ko kenn ci réew mi amul kenn kuñ jox pouvoir boobu xaw ma lu mu def waaw sàcc boo ko jàppee danga ko yóbbu ci yoon kenn waxu la na nga rey rey kenn dégluwu ko senegal e eh, mu ci mu ci mën nag sori parce que xaw ma histoire bi ma daal li may wax daal mooy kenn diggalul kenn na nga dóor ba mu dee groupe bu ma neexul la warul tas waaw parce que groupe groupe groupe groupe bu sénégalais yi bëgg la warul tas man nag euh, sa samay mbokk lañu parce que c'est la famille euh, bëgguma xuus ci beneen côté parce que maîtriser wu ma côté boobu noonu mais xam naa ni groupe bu bu mën a bu mën a bu am départ la aussi bu sénégalais yi bëgg ah. aussi ñu amoon trop complicité Euh, mais xanaa ñaan yàlla rek euh, waxtaan am bu dee euh, li ñuy wax am na waxtaan am àndaat am liggéey am parce que nag mbooloo mooy doole te ñoom ñaar bu ñu booloowee rek day day day am solo hmm, couple bu ñëpp bëgg la. Hmm. donc Demba duñ la téye lu yàgg déjà xam nañu say activité macha allah yaa ngi war a dem ci yeneen i affaire donc duñ la téye lu yàgg mais ñu ngi bu baax déjà si sa oyof. sa disponibilité mi naa baal man noo sant. ba noo noo noo noo def ak ñu sant Sow Sow Poulo Ardo genre yooyu ñu sant Sow. naka nga def ak ñoom dëgg tendance la temps yi nag tendance la. Ah. gars yi jënd mais gars nag ñu ngi koy woyee nu mu leen neexee eh sa xarit bi Wally Seck woyu ko woy bu baax bi de. eh woyu ma attaque voilà ak Issa Peul lañ la wax Sambak Issa man Mandaw ak Galo. Eh, Sow Poulo Ardo mais ñi naan sàppal ma sàpp xaw ma leeral nañ ñu ko ndax yow mi woy nga ko. yéen da ngeen bëgg a tooñ waali dama lay wax. Hmm. yéen dafa mel seetal leen émission bi. waali woy na ko ci harmonie bu neex barki yonent bi xaar max la xam nga waali nekk fa di chercher parole boo déggee même waali bi mu ko miimee noonu même bu waxul parole li nett même même même rek même bi ko woyee may ma boo déggee bi waali pare nee na loolu la du point d'être kese waaw dafa laajte maîtriser wu ko togg fa pour xool parole de mhm. harmonie woy bi lay laaj c'est ça non gars yi na ko c'est ça mu ne la donc trouvé na morceau bi ñu doon demandé juste pour loolu mhm. mais di ay waxul lii lii la wax yaa dégg mhm. man woy naa ko en 2018 sama album la nekk moom laa dugal noonu keroog maa ngi ku nekk naan da da ngaa ah, waal dafa génnee nga mais effectivement loolu laay ba moo ko woyoon laay ba mu ngi léegi Europe laay ñaari laay la laay ñu ngi nekk Kaolack ñu ngi ko woowee Fatou Sow. Mm-hmm. Fatou Sow dégg naa léegi dafa décédé yàlla ko yàlla yërëm dégg waaye li Waly Seck woyoon noonu euh, ni ko Waly Seck woyee harmonie bi neex ñëpp jël ko loolu moo ma indiwaat ma ne yii li Waly woy neex na trop kon xaar ma indiwaat sama ni ma ko woyee ma tamit ma ma ma indi ko. Waly moo ma wanaat ni morceau bi dafa neex ma dem jëlaat ko woyaat ko. même même maa ko njëkk a Euh, euh, euh, waali yaa ngi dégg mais ni ko waali waayate dafa neex te te ni ko waali waayate sax la la ñëpp jël parce que bul fàtte ni que 2018 mhm. TikTok mel woon nii trop trop trop quoi TikTok après la ñëw affaire bi di gën a saf yaa ngi dégg mhm. mais mais ni ko waali si wayaa sekk ni ko waali sekk wayaatee mu neex même bu jàppul parole yi way bi moo neex mhm. waali tooga fa woon pour xool parole déedéet dañ doon teg ay ay rétro harmonie la teg mu nice lool mu ne c'est ça que moom wóoru ko dafay laaj ba loolu dégg léegi yaa ngi dégg léegi nag bi Wally Seck woyee mu neex ma ne ii xaaral li Wally Seck woyee ko neex na trop xaa ma dem jëli loolu man tamit fi ma ko woyee woon ma dem coupé ok wooy nax di dem dem 18 ça fait 4 ans ma dem indi ko teg ko yaa ngi dégg maa ngis gis yi ku nekk di ma <laughs> di ma sànni xeer Euh, c'est ça xam nga gars yi di ma woo di ma tooñ mais sama sama album laa laa ko defoon parce que boobu rendre naa ci hommage Youssou Ndour euh, Pape Diouf Wally Ismaël Lo Alioune Mbaye Nder ak yooyu quoi mu ngi tudd album musique ku dugg YouTube di nga ko gis def na 4 ans ak léegi mais quand même euh, tendance la rek ñëw na Wally wooy ko mu neex man tamit ma jëlaat ko comme woyoon naa ko ma génnee ko affaire ba neex que ma ay ci Wally Seck ngay profité ma ne mais c' est normal parce que dafa neex de nit ñi jël ko. ma ne kenn xam dem jëlaat ko rek c' est loolu kese la. xam nga Sénégalais yi nag ñëpp duñu comprendre souvent mooy loolu. loolu la waaw tàggool ma si sopp la aado bi rek. ñu tàggool ok kan. sopp euh, Fatou ma xam nag ñu bëriñ corrigé ah naan euh, nu mu tudd. ban tur nga waxoon sànq ban ban. par nga waxoon nan la woon Sam Sam. Samba waaw di dama lay de nañ nañ nañ ci def en très am na ñuy wax ni même nekkul Samba ak Issa Pël man nag wóoruma weddiwuma kenn am na Samba ak Samba man ndaw ak Galo man ndaw ak Galo loolu la yaa ngi dégg waaye man xam nga tax du ma polémique ci loolu amul chance li ëpp solo mooy rek euh, woy bi neex na daal ñi sant soow jël nañ ko c'est important dégg ni ko Ablaye mbay doon defee miime noonu dafa dafa dafa doy waar et man vraiment j'aime bien. Euh, di jël ay rétro morceau boobu dafa ëpp laay ko woyoon ñaari Ablaay lañu ñu woyoon ko Fatou Sow mais woy bu doy waar man nag vraiment harmonie ma neexoon rek moo taxoon ma reprendre ko bu yàgg mais vraiment maa ngi remercier ñëpp loo bëggoon ma def nga ne. moom laa bëggoon rek nga tëjee ak saw pulwaar do borom naag ak meew yaa samak safar mandawa galo soxla a borom nag ak may sama yaay Fatmata Sow